Assalamualaikum, mbokki département de Pikine ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tey jii la tàmbali sunu campagne visite de proximité ginnaaw bi nga xam ne bésu tabaski bi dem nañu ziyaare ji chef de village Grand dem ziyaare ji chef de village Petit Mbao dem ziyaare ji chef de village yu Kamb ak Kër Mbay Fall ñu toxtal ci ziyaare imam ratib bu Petit dem ziyaare ji imam ratib bu Zac tey jii nag ci programme bi nga xam ne moom la nas muy sunu programme campagne ginaaw ñaari bës yi démb ak barki démb tey jii lañu ubbi sunu campagne à travers des visites de proximité ñu tàmbalee ko nag fi ñu aada woo di ko tàmbalee mooy ci village boo xam ne muy village de mbaaw tàmbale ci village de mbaaw waaye tàmbale fii ci buntu kër ci biir kër imaam ratib bu Grand Mbao